ay ca mbokk yi ndeysaan combat bi nekk ci biir géew gi moo war a dox ci diggante calki bu dérangé calki ay ca calki bu dérangé ak Jackson 2 Jackson ay caabi bi sifle na génn seen diggante Jackson ak Calki Calki bu déranger ak Jackson Jackson de moo leen woon ginnaaw jàppante nañu ñoom ñaar Jackson ak Calki Jackson ak Calki Jackson ak Calki Jackson door na Calki bu déranger ak Jackson lay la xëy mbër bëgg naa. maa maa ngi bu baax. mais ñu gis la nga bëre daan tey bi nga daanee sa deuxième combat am deuxième victoire lan nga yëg. mbégte rek bi laay walaay. gën a encouragé samay supporters. gars yi jàpp. gën maa jàppale quoi. di woo di woo am politique grand yëpp ñoo jàpp ci. mu amee combat yi ñëw jàppale ma. laay xam ne ñun ay ndaw lañ. ñoo bëgg dara de avenir ñoo am avenir ci làmb te soxla ñu kuñ jàppale. billaahi wallaahi. mais tey yaa ngi bëre am nga premier combat macha allah daan deuxième combat nga daan tey fan nga jëm ci sa ay morom. sama morom bu ñëw ñu bëree. comme ñam. lay seet ay. man la sama morom bu ñëw ñu bëree. billaahi wallaahi. caatu kolobaan bu ñëwee ñu bëree booy plateau bu ñëwee ñu bëree. Eh, ñeme nga plateau. kon tàppatu ma loolu. Ah. bilaay walaay. booy gannaaw nga bee caatu Colobane mooy loolu booy. Colobane ma loolu ñun samay morom lañ bu ñu ñëwee ñu bëre. Ah. bilaay walaay. bëgg naa ci yow. kontaan ci yow. bilaay